tijani sama waay la jamiñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub acca euh, ba tey mu ñuy ci destination euh, le 13 incha allahu rabi euh, muy bés bi nga xamante ne Thiès waa yëpp actuellement ñu ngi préparé wu boo leen ma gisee nag ma den ak Matar sama waa ji <laughs> borom sañse yi ah xam nga cees gars yi dañ ko dañ ko nawloo dañ ko jox cër euh, ndaxte euh, ci mbaaxam mu wax na ko léegi euh, mu nekkoon waxu suuf waaye dama ko yëkkati ci kaw ci mbaaxam ci cofeelam bi mu am ci Pape mbay gëm gi mu gëm projet Pape Mbaye ndax Pape Mbaye projet la gëm gi mu ko gëm aussi ak accompagner bi mu koy accompagner gëm ko itam mooy waral tous les dimanches da ngay gis mu ñëw avec une forte délégation ñëw fexe ba nit ñi di ñëw fexe aussi di def lépp lu mu mën ngir bés bi mën a réussir tey ñu dëkk mën le 13 le nekk bés boo xamante ni pour la première fois artiste Thiès tëgg fa muy Esplanade bi Esplanade sapeur pompier nekk lu tuuti te samp rek mooy tax nga mën koo ñemee pour mën ko dem léegi nag Matar dama lay nuyu. dama laa bett nag quoi mais dama mais mais dama lay béggee. maa ngi lay fay di jee lay fay di ànd ak di fay gars yi gàddal yëpp. kon mu nekk mu nekk benn bés bu am solo ñu ñëw fi tey ngir ànd ak yow. Mm-hmm. ci bés bi nga xamante ne rek Pape Mbaye dafa woote Pape mbay woote na woote na bés bi nga xamante ni mooy bés bu mag bi mu war a tëgg Esplanade sapeur pompier pour la première fois à pour la première fois un artiste tëgg fa parce que bu ñu doy xool artiste mag rek lañ fay gis ñu jóge dakaar ñëw promoteur yi tëggal leen mais tey Pape Mbaye tëgg sa diggante Pape Mbaye waaw loolu c'est une belle initiative maa ngi ci kontaan vraiment man li ma bëggoon sax mooy bokkoon ci délégation bi ñuy wër ñeneen ñi ma bëggoon man parce que ci staff laa bokk en grosso modo ñoon ci staff bi la bokk parce que Pambay dafa nekk sama rak en doo de la musique sama rak la mm-hmm. parce moom xam na xam na mm-hmm. suñu papa la woon ñoo la ànd mm-hmm. milieu néewul moo ñu boole ma am cofeel boo xam te nag si moom la ak yërmande ak ñeewante boo xam ne ni mun ma ko sax exprimer quoi Pambay dafa nekk nit koo xam ne aussi tamit euh, dafa nekk nit koo xam ni dafa simple yaru Pambay doo ko gis mukk ci détail doo ko dégg mukk ci loo xam te ne ko ci gis mm-hmm. à chaque fois boo gisee mi ngi joué musique su mm-hmm. paree mi ngi nekk ci coin bi liggéey liggéeyam mm-hmm. vraiment loolu tamit nekk loo xam ne man lu ma gën a tax ma gën a ñimee Pambay la waaw dama ko ñimee Pambay dama ko ñimee te aussi tamit euh, anniversaire bi bëgg naa mu bokk ci anniversaire yi gën a réussir mu gën a réussir kon donc man maa ngi seen ginnaaw maa ci ginnaaw Pambay maa ci ginnaaw staff bi lu ngeen bëgg bu leen neexee sax laajee ma demandé permission sax ànd ak yéen ñu def pour pour jëmmal bis bi. sa diggante sa diggante Pape fa falal toll Pape falal toll ah, mu nekk lu am solo les dimanches ñu gis dimanche. les dimanches c'est autre chose les dimanches c'est autre chose man li moo bëggoon sax ñu ñu ñu jéem a xool pisin bi lu ñu ko rasé comme ça foofu gën a gën a mokk quoi. parce que Pape moom macha allah mi ngi assuré les dimanches quoi te Thiès mm-hmm. si su demee da nga soxla woon lii. Mm-hmm. Thiès dimanche boo day naan ñëpp dañuy nekk seen coin toog. Abbas fexe pa Pape fexe ba créé loo xam te ne dimanche ce soir yëpp dañuy génn tase béggee kafre après bon nëpp nëpp nëpp nëpp parce que Pape Pape ndaw ñi wóyulul mag kase moom moom macha allah ñëpp ñëw ku ñëw di nga ko sant sa bopp waaw moom ku ñëw di nga sant sa bopp ci musique am quoi franchement parce que musique lay def si tam dafa nekk loo xam tamit tamit sàcc ko abbu ko ñaanu ko waaw lu mu doon la doon la daa njaay cosaan ku muy sa maam waaw cela veut tout mu ngi noonu léegi le 13 bi muy samedi combat bi waaw parce que dafa mel ni tey jii Pape mbay dafa mel ni euh, bi ñu gisee Sidi Diop jóge fii dem Zénith gis ñëpp jàpp ci mu dem def tour artistes yi seeti ñëpp mais Pape mbay tey samp biir sapeur pompier mu am histoire sapeur pompier am histoire bu muy ci Thiès kaay euh, tey Pape di dem foofu le 13 nan nga ko fas yéene préparé. moo tax tey Pape ñëw indi la sa lettre. li ñuy wax rek ngir nga ñëw daa kuy kuy wàll yaan daa fekk sa kër dafa tegul. waaw tey nag suñu kër ñoo tëgg ñu waa kër yi ñu ñoo tëggal suñu waa Thiès dañ xam ni seen doom moom mooy ñëw le 13 sans euh, biir sapeur pompier pour la première fois artiste Thiès ñëw fi joué fi kon loolu dafa war a am réussite totale mooy woo ñëpp sama xarit sama ab jàmm ñëpp koo xam ne daal ngay bëggee Thiès koo xam ne Thiès dafa na dafa ne sa xol jour boobu sa jour la jour boobu le 13 sa 13 la quoi da nga war a ñëw ñu waree ni Thiès am nañ daanaan Thiès am nañ daanaan waaw donc kon mu ngi noonu kon le 13 daal yow nan nga fas yéene ñëwaat parce que sañse bii nii déjà yow def nga en route vers le 13 bi sañse bii rek moom la Pape di wax léegi non le 13 dañuy ñëw ak délégation boo xam ne maa dem si ah. eh, jox ma lettre bi ndaxte lettre bi sax Pape moo ne naa ko indi mu jugee ci xolam tegu ci ay loxoom jëm ci ay loxo mais leer na man ci sa xol la jëm ndax sa diggante ak moom comme ni nga ko waxee lettre bi la la Pape jox muy sa enveloppe bi nga xamante ni moom mu la jox ngir sargale la bés. vraiment kontaan naa waaw moom Pape moom lii bu ko defee bon day def loo xam te ni bon geste bi rek mooy noble quoi mais xam naa li mu def nii sax mënoon na ko ci bañ a fekk parce que Matar Pambay benn la dès le loolu dès le début la woon lii mu def nii day wane ne gën a coow wedd feddali cofeelam ci man ak yëg-yëg ak respect bi moom man mm-hmm. yàlla xam na ko te kontaan si trop vraiment te kontaan nañ si trop incha allah le 13 yàlla baax na. le treize daal kon daal ñu ñu séntu la dix huit heures. le treize sama le treize la. <laughs> xam naa daal ni mu na a. xaw lu mën a communication quoi xam rek dama xaw dama xaw. ba mënoon ba mënoon toj ba mënoon toj. <laughs> yaa may jàppale quoi yaa may. ba mënoon toj. yaa may appuyé déjà déjà yaa may appuyé. mais en kontaan nañ ci accueil bi. Euh, kontaan nañ ci dalal bi kontaan nañ ci yëf yi euh, kon ni ñu la fekkee wa wane na ne yaa ngi waajal le treize bi incha allah rabbi vraiment Pape mu ngi lay la paix kontaan nañ ci accompagnement fi la non fi la fi la fi la paix ñoom mm. ñëpp euh, le plaisir pour moi man maa gën a ma dama kontaan si ba mënuma wax ba mënuma wax quoi franchement mais yàlla baax na li ci kanam bu bët yaa ko yàlla jàppale jàppale ñëpp jàppale artistes yëpp incha allah jërëjëf Matar waaw jërëjëf awu. Matar kontaan na. Ah, maa leen gën a kontaan bëgg nañu ah. ba fii la paix kontaan nañu ah. ba fii la paix yàlla <laughs> alors mi ngi noonu Matar euh, ñu def destination le 13 wax na ko Pape mbay sensibilité bi nekk ci moom yërmande gi mu am ci moom Pape mbay itam li mu doon fu ñu jaar rek tudd nañ sensibilité bi tudd nañ yërmande gi tudd nañ oyof gi te loolu aussi moom mooy nit yaakaar naa ne loolu rek ci loolu rek war na tax Cees kaay samp ngir soutenir seen doom ji parce que pour la première fois mu tëgg fii am na fu ñu jëm fan lañ jëm nag fii lay wane fii mooy dàmbali bi incha allah ngir fa ñu jëm ah Idali d' accord nga idal yaa ngi d' accord kon muy baax mais kon acca ok kon ba le treize incha acca <laughs> bu ko defee mu ngi noonu ah mbégte mi euh, ak contentement bi moo waral fu mu toll nii ngeen gis rek ñuy ree ndax le treize lañu jëm du noonu soxna maam jaar lañu seet si euh, tey nag mu nekk bés boo xamante ne bés bu am solo la ñëw ci moom mu nekk jigéenu Papa Mbaye comme ni ko Papa waxee euh, ñu gis ni Papa Mbaye fu mu wootee mu wuyu mu ñëw wuy si mu nekk nag loo xamante ne lu am solo la tey Papa Mbaye pour la première fois mu song fi nga xamante ne moom mooy sapeur pompier splanade bi splanade bi nee naa amuñu si ses amuñu splanade grand théâtre mais am nañu splanade bu sapeur pompier pour wax leen dayo bi événement bi toll Papa Mbaye di xool ay nitam waaye seeti ñi nga xamante ni itam yàgg na ànd ak ñoom rawatina ay soppeem ngir delloo leen jukkal nga bokk ci sa diggante Pape Mbaye tey ma ñëw seet la. Euh, salaamaaleykum. maaleykum euh, en fait man moom mënuma wax ci genre yi. Mm-hmm. mais bof Pape mbay sama nit la sama xarit la te en plus nit ku baax la taalibe Serigne Saliou la loolu moo tax ma yokk ko jàpp. dafa def benn acte boo xam ne ma dem si kontaan. Mm-hmm. damay def sama birthday mu def déplacement. dérangement ñëw ba sama gàlle toog wayal ma et en plus ma jox ko sama numéro grand frère ñoom ñaar ñuy déggante ba mu jàppee nag ba tey bàyyiwul ba Pambay ma mënu ma ko fay dama koy bàyyi ak Serigne Saliou mi ñu bokk mu fayal ñu ko mu organiser tamit soirée am tuddee ma ko ma ñëw ak sama asaka yéene dikk def li ma war a def yaa ma gën a xam daal mooy loolu peut-être man à chaque fois li mu koy wax rek di ko wax ba du aaw ndaw la dafa nekk si yoonu dem nañ ko jàppale mu dem Thiès bëreet lañ am mais amuñu fin comme que yàlla mu ngi koy suturaal mu ngi woote nit yi di ñëw ah loolu sant yàlla la moom moom dina am lu baax parce que taalibe Serigne Saliou la mm-hmm. te jàpp naa ni taalibe Serigne Saliou warul ragal man Pambay sama grand frère bu baax la yàlla moo ko def ci man mu bëggal ma boppam man tamit ma bëgg ko sama bopp peut-être nag lu mu tëgg te mënuma dem peut-être dama am empêchement wala mooy loolu mais comme que le treize la moom moo aay ah dinañ dikk rek dooleel ko def lu ñu mën jàppale ko parce que Thiès la yaa ma gën a xam te ñun amuñu lu dul Pambay. Pambay daal ngeen am. ah mais. Pambay mais mais man dama gis ni benn affaire la dimanche yi. d' abord balaa maa ñëw le treize dimanche yi dañu gis taxawaay bi ngeen di taxaw ci dimanche yi dafa mel ni loolu sax moo jur le treize yi. waaw parce que dimanche yi Pambay li muy def nii dafa neex mu defal ñu yendu waa Thiès ñuy sabuure soulagé wu feexal suñu xol parce que àdduna lépp loo gis triangle la Pambay li muy def dafa neex dañ ko ci ñaanal rek jëm mu dem kaw ca kanam man loolu laa koy ñaanal. loolu nga koy ñaanal allahumma amiin Pambay di la sargal Pambay boole la ci ñi nga xamante ne ñoom la tuddee bés bi. mu nekk lu am solo lool mu ñëw ne ma tey damay ñëw Pakito ànd ak Sénégal gépp i dal yi ñëw ñëpp ñu àndandoo pour wan Sénégal cofeel gi ma am ci moom jox ko lettre am ci kanam mu ñëpp ñu teg seen bët euh, ñëw ànd ak yow loolu nan lay def ak nooy waaje bés bi. Euh, en fait lii mënuma ci wax parce que Pambay li mu def lu rëy la aussi bett na ma mais yàlla baax na yàlla aussi bari na sutura le treize incha allah dinañ boole. sunu dem ak sunu Dakar mhm. ñu ñëw def lu ñu mën duñ ni nag mën nañu lépp mais dinañ def te yàlla tax mhm. Pape Mbaye même bu ñu joxlu woon sax ma bu ñu maree newul woon mhm. ñun am nañu droit ñu ñëw ñu jàppale ko parce que sunu nit la bëgg na man moom dama parle man Pape Mbaye daf ma bëgg du cadre public bi toog moo tax ma la parce que Olof njaay bu la defalee lu baax te waxoo ko suy lim ay noonam na la si boole lii nag may def ni c'est la première fois mu koy def parce que Pambay sama nit la dafa bokk ci man lii olof Njaay naan ragal féete dafay xañu wërsëg Pambay sama nit la man maa ko bëgg sama bopp loolu yàlla def na ko ak en plus ñu bokk Serigne Saliou bi ñu bokk te man Serigne Saliou gi moo yokk tax ma bëgg ko. wallaay mi ngi noonu gis nga tey euh, bés bi bés baa ngoog bés bi la treize bi daal euh, dafa mel ni fu mu toll nii daal kon pare nga nan ngay dugg see sa sa dugg si ci biir sapeur incha allah sa dugg si. maam jaara ku la xam ku la xam-xam ni maam a délégation bi mu nar a def maam jaara dugg sem ñu ne maam jaara ngeen dugg ah mais dañuy kii rek jéem xam nga mënuñu lépp ah déedéet mën nga kañ maam jaara ñi di la waxtaane non mënuñu xam nga hmm? mais ñun xam nga yow bàyyi lekk ba booba hmm. su boobaa ñu jéem rek li ñu mën def li ñu mën <laughs> ñu ne délégation wu Mame Diarra yegsi na ngir ñëw ci bés bi àndandoo ak Papa Mbaye ngir soutenir ko ci anniversaire am bi en tout cas Mame Diarra Papa Mbaye na amul sa fay mu ngi lay gërëm mu ngi lay sant. man tamit maa ngi koy delloo sant bi moom laa war a wax aw ma santam aw ma kii woom fayam parce que li mu def nii dafa bàyyi buntu kër yi baree baree bari ñëw suñu buntu kër mais xam nga Papa Mbaye Madina Fall la dëkk man maa ngi dëkk mais parce que yëg ma moo tax mu def lii mm-hmm. te ku la yëg ku ne moo la sonal li mm-hmm. nga ma sonalee noonu li nga xam ne dëgg la ba la tëddee incha allah Pambay jam nañ la Pambay fu mu toll nii maam jaar bu Bousso jam na la dafa mel ni pare na bu yàgg moom itam euh, taalibi Serigne Saliou bi mu ngi noonu tey moom lañ seet si woon euh, ngir rek euh, xool ko seet si ko waaye itam teg ko fi nga xamante ne fa la ko Pambay teg ngir jox ko li nga xamante ne rek moom mooy cërëm bi mu am ci bés bi te di ko wax rek ni mu ngi noonu ginnaaw suba incha allah rabbi li ci des bëreetul kon fu mu toll nii daal dafa mel ni kenn nelawatul fu mu toll nii nelaw jeex na ci réew mi kon destination samedi le 13 ñu ànd ceeg maam Diarra Bousso ah, kon mu ngi noonu comme ni ma leen ko waxee saa su ne rek ngi noonu pour la première fois artiste Thiès tëgg fa ah, esplanade bu sapeur pompier yombul moo tax na gis ngeen liggéey bi depuis boobu ba léegi ñu ànd ci nekk ci lépp rek ngir affaire yi gën a mën a dox ndax dañuy samp samp rek comme tu le dimanche samp rek. di daani sama waay la jàmm ñal Diarra Bousso bala ma sebi